سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وسورا bisimila mbokk yi dalal kon ganu bis bi ci xibaar yi jot na sëkk yama mu egsi Serigne Mourtala Gueye lay wuyoo moom nag mooy coordonnateur euh, bu cellule communication retet ndoxu Touba euh, wala boog ndoxu Mbacké euh, lu mu ci mën a doon ñu bàyyi ko mu nuyoo teg askan wi sëñ Mourtala mbég la lool dalal la ci xibaaru màggal gi bàyyi la ko nuyoo Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah sama sëriñ ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax di am mbégte di siyaare waa dëkk bi di ko jaarale ci côté dëkk waaye di siyaare mboolem ñuy topp Walfadjri di am mbégte bu baax ci dalal gi ñu dalal ci plateau bi ci xibaar yi su ko defee kon ñu tàbbi ci rek muy reteet ndoxu Touba. Mm-hmm. Touba nag dëkk la boo xam ne dëkk la bu màgg loolu ba wees sax fañ ko doon xaar. Mm-hmm. lu jëm nag ci wàllum ndox at mm-hmm. mu yàlla sàkk jafe-jafe da ciy am. retet ndoxu Touba itam ay at a ngi fi mu ne fi muy ndoxu Touba ndoxu Mbàkke yëpp. retet googu fu ngeen ci toll. ak fan ngeen ci yaakaar egg ngir mën a am li ngeen bëgg. ba mën koo weesu. ok jëf euh, maa ngi am mbégte bu baax ci question bu am solo boobu retet gi fan lañ ci toll. ma leeral ni euh, du defar du wàqi du gas du defar duñ ay techniciens yuy defar mais ay dénonceur lañ dañuy reeteet reeteet am picc la moo xam ne mi ngi ci àll bi hmm. bu gisee jaan wala xaj buy matte te mënu koo rey mënu ko mënu koo rey xam ne mën naa lor gone wala dara hmm. da koy tiim bi sab hmm. di ko tiim bi sab bu ko mag ñi gisee nag dañuy doom rey ko kon reeteet moo la boo xam ni pour jéebaane la pour wélipande la ñu ngi ko jëlee nag ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér gannaaw bu bi amee ay jafe Euh, ci wàllu ndox ñun dañoo dëkk Madiana ñu ko daan wax Marwayaana ñu fexee fexe ba Madiana am ndox investir vingt six millions pour am ndox boo xam ne maaw moo ko waroon def ak offort ak hydraulique defuñ ci dara ñun ñu wut suñu xaalis jënd suñu ay tiwo ànd koog ñoom maaw te biñ koy ànd ak ñoom dañ ñu dañeen ñuy fay buñ liggéeyee ñu fay leen ñu nangu fay leen ñu liggéeyal ñu ba noppi ndox mi dem ñu jug nag di gëstu loolu jël benn technicien suñu coordinateur ak équipe bu yabal leen ci terrain bi ñu xool lu tax ndox mi dem gannaaw bu ñu wooyee Moustapha Dieng mi yor ndox mi amuñ ci benn saafara ñooñu nag bi ñu demee ñoo gis ay wan yu ñuy tëj gis ay tiwo ay wan yu grippé gis wan wanu depart bu nekk ci forage buy añ bi ci kaw séddale bi bu paan te loolu euh, confirmation bi am na bi ñu ànd ak sous ak équipe bu jëm ci ndox bi yëpp ci forage bi. Mm-hmm. loolu bi mu amee nag ñun ñu dénoncé ko boobu agagul agagul retet ñu dénoncé ko au niveau de. Touba ma def benn audio yaatal ko adressé ko sëñ Bas ngir xam ne bu ci jotee rek war naa mën a am saafara ci bëccëg gi sëñ Blaat monsieur Ebi woo ma ne wuyu sëñ Bas ma ñëw wuyu sëñ Bas leeral ko li xew moo monsieur le ni ko ñii kat nee ni day woo sous-préfet woo sous-préfet sous-préfet bi mu ñëwee lii màggal daaw la daaw jég la sous-préfet bi mu ñëwee ñu ànd ñu ñu ñu war a dem foofu. maire bi mu ñëwee ba kër Sëñ Touba gi dañu mënatumaa dem damaa am yitte yu ma war a lijjanti. te alors que deux jours des si màggal gi. ñu war a jox askan wi ndox mi. boobu jafe-jafe bu mag am mu ñu mënatul dem jox ma paas ma dem bi nga waroon dajeeg sous préfet forage bi ci yoon Darou Mouhty. dem wan leen ko bi may dem li may gaaw gaaw fekk naa sous préfet àgg. fekk fa suñu technicien bi ko war a wan wan yi ñu tëj. ñu tëj ko pour askan am am ndox. waaw sous préfet jàpp ko moom yóbbu police di téye leen ma ko ba màgg jàll. waaw loolu suñu agent bi moo ko wax. waaw sous préfet mi ngi koy weddi waaye suñu agent bi loolu la wax. waaw léegi nag bi loolu amee gannaaw bi man ci lañ nekk di yuux di yuux ba kenn ci njabootu sëñ Muntaxa dégg ko. waaw daal di daa bëgg xam ñi xam ci ndox mi dara. ngir wan ko sëñ bi. ca la ñu yóbbu ci sëñ Muntaxa. waaw ñu leeral sëñ lii ma wax. ne kon ndox mi dañ koo téye buñ ko tijjee nit ñi am jàmm te hmm. la sëñ Muntaxa jëfandikoo daajikat cinq cent mille jox ñu hmm. ni defal leen ma ko ci liggéey boobu ngeen def Madiyana hmm. ndax liggéey sëñ Tuubaa la soo ñoo digal ni ba mu yem Madiyana na ngeen ko yaatal ci dëkk bépp lépp lu yàqu-yàqu ci ndox mi na ngeen ko reeteet fala déggee reeteet man reeteet ba pare ni na leen jéebaane na ngeen yóbbu sama tur fu ngeen dem na ngeen xaalimaa jox ndigal ñaari at a ngi ñu nekk ci léegi su dëkk bi voilà léegi retraite gi ci ndigal gi ñu koy defee mhm. ku tedd kee leen ko sant moo leen jox tur bi mhm. waaye bu weesoo sant gi yëpp maanaam fan yooyu nga xam ne dañ koo tëj mhm. ñe tëj loolu tëj gi moom tëjuk sabotage la wala ak ñi ci ñàkk xam la aju ci ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi war koo amal wala tëj gi moom ci lan la aju laaj bi sëñ bi laajoon na ma ko ñan ñoo ko def ñan ñoo waaw ma ne ko Mbàkke xew ma ñu ko def waaw waaye ñii may wax xam nañ waaw mu ne ma ñan ma ne ko monsieur le maire waaw sous préfet Moustapha Dieng bi yor Maou Rahmati Bamba Ofor Ibrahima Fall euh, bi nga xam ne moo nekk hydraulique mhm. moo man ndax lan mhm. la wax ne xam nañ ko ma ne ko ñun biñ ko gëstoo ba gis ko dañ koo tëj di leen woo pour wax leen ko mhm. seen responsabilité moo doon wàcc ci terrain bi dem defar ko maire defi ko sous-préfet dafa jàpp waaj ba ko koo tëj Moustapha Dieng defi ci benn jéego Bamba moo fi nekkal Ofor benn nit Ofor benn nit la am Touba mooy Bamba Ofor ak dëkk bi nu mu toll ñu ne mooy deuxième euh, euh, dëkk ci Sénégal am trente neuf forages trente cinq ak cadre yu bees yi muy trente neuf hmm. ñu ne ofoor benn nit la fi am hmm. mu yore otoom di tourner hmm. di jël ay business am di lekk moog ñu mu siqal ndox léegi sous préfet ginnaaw bi mu ci jàppee que ci jàppoon yóbbu ko ci yoon ne nañ ko fa teel waaw nan la mujjee ngóor soos dafa xëy xëy bàyyi ko wala dañ ko yóbbu ci yoon ngóor soos fu mujj euh, commissaire ci boppam ci leen ngóor si nettali waaw nee na commissaire ci boppam waaw moo ni kii du ma ko téye waaw li mu wax ñi ko def la ñu war a téye waaw du ma ko téye nee na keroog sous préfet ko jox 2000 francs passe mu dem ñibbi bàcc ñang la tudd Madiane gi la dëkk tey rek mi ngi wax ni nañ wàcc terrain bi ñu doon vérifier wan ji sama sëriñ damay jox benn kii bu leer rek pour nit ñi xam ni ndox mi dañ koo téye benn forage bi ci université bi mooy jox ndox mu neex Touba gépp ndox mi nit ñi naan benn forage a koy joxe donte am na ay privé mhm. mais quatre-vingt pour cent benn forage a koy joxe dañ koy jaay léegi forage bi ñuy jaay muy benn mën a naanal dëkk bépp yeneen trente huit forage yi nekk ci dëkk bi ñun mënu yoo jox nit ñi ndox muñ sangoo loolu ay tappale ngir jël ndox mi di ko jaay am lu ut luñ ci waaw pour l'instant ci wàllu jaay gi waaw yéen ban intérêt ngeen jàpp ne ñi ko téye moom lañ ci am ba war ko mën a téye voilà léegi euh, suñ Mor Ndaak Taal wax na ko sànq ñii yëngu ci ndox mi fii ñi ëpp ci ñoom dañoo am ay oto ndox ñuy jaay ah. dañoo am ay oto ndox muy jaay boo leen woowee ñoom boo leen woowee ñoom dañuy dégg seen responsabilité xaaral ma boole laa kii jaayu waaye dañ ko jox carburant xam nga oto bu lay laaj carburant cinquante mille ci période mag naan damay leenante damay nangam même état bi indi na fi ay état bi mi ngi def xalamaluma état waaye état mi ngi def ay forage ci dëkk bi di andi ay kilomètres kiwo ci dëkk bi mais amul supervision hmm. sous-préfet bi fi nekkal état amul taxawaay bu dëgër ci ndox mi te moo am. kilifa yi nga xamante si ni ñoom la seen maam moom dëkk bi. ñoom dëkk bi ni mu bindoo kenn ci ñoom du jug di wax. waaye nag am nañu sëñ bi dénk sëñ Muntaxa am na ñu mu dénk. état am na ñu mu dénk. état ñi mu dénk li leen war ci ndox mi defuñu ko. du maaw du du effort du hydraulique du sous-préfet mi nga xam ni. Mm-hmm. pour ma wax la ci dara. daaw dafa am benn tuyau bu toj. trois cent quinze. ñaari forage su koy jox. ñu fay ñaari forage yi ñaari. ñaari forage koy jox ñu fay ko deux jours moo des ci màggal gi trois trois cent quinze nii lay tool am dëkk ab dëkk lay may bi ñu ko fayee ndax ndax waa Sénégal ñoo doon defar bënn ko mos ñu woo ko ñëwal defar ko mu ne ko Sénégal ko yàq na ko defar Sénégal ni ñun mënuñu war defar du ñu ay premier ñoom dañuy defar jox performant ñu fay te loolu mooy yoon ah, Moustapha Dieng maaw defu ko man man en tant que retraite coordinateur retraite dix heures laa fa dem sous préfet ñëw fekk ma fa nuyu ma ma fay ko daaw laa wax de waaw fay ma fay ko mu ñëw vérifier dem donte xëy na mi gëstu après mu ñu ba quatorze heures waa hydraulique ñëw wàcce ay bagage dem ñu toog ba dix-sept heures waa maawu ñëw ànd ak équipe boo xam ne ay xale ca nekk ñu sawar am njàmbaarte ba a liggéeyal sëñ bi ci dëkk bi donte dañ leen di fay waaye amuñu benn jumtukaay oh. fii may waxee yow maawu raxmati seen équipe technique bi matuñu dix personnes oh. seen équipe technique bi oh. oto boo leen woowoon tey bañ ñëw yaay wuti ay matériel ci beneen premier jox leen pour lan sous-préfet ba ma keroog bi nga xam ne ci woowa toñ na fa lañ nekk ñoom ba vingt deux heures soxla ñetti éducateurs oto yi manque ndox bi ngir mën a jot trois cent quinze ba defar ko mm. te fee na ñaari forage yi mm-hmm. ab ci woo war a mat mar quarante euh, euh, nu mu tuddati vingt quatre heures bi loolu amee ba guddi vingt deux heures ñu ne mënuñ koo defar ndax amuñu ay jumtukaay mm. benn oto ndox leen leen leen sous-préfet yónnee gannaaw bi ñoom ñoom ñoom ñu ne bañ bëgguñoo jël risque dañuy bàyyi lii mu jeex mm. ñu dem léegi bu may ma tuuti ñoom ñu war a dem waaw vingt deux heures moo ma fa dix woo sous préfet hmm. ma ne ko sous préfet bi naa ma ne ko dëkk bi ko dénk maaw am na fi ofoor am fi hydraulique nekk fi ñoom ñëpp seen ndigal la ñuy wëy hmm. te lii ay taxaw képp la manqué pour ñu defar hmm. ñetti éducateur amul ci dëkk bi groupe groupe groupe groupe nu mu tuddati pompe bi nga xam ne mooy may nga ci ndox ñun Madiyana barki dem adhésion d'eau lañ def ñu dem ba yàgg ñu ñàkk ñu ñàkk ndox bi bari dañoo dem jëndi benn récureur benn benn moto pompe cent mille francs loolu rek maaw mënu ko def ñoom mënuñu dem jëndi moto pompe defuñu dara man ni sous ñii boo leen joxee ndigal ñu def ko ñun nag reeteet dañ ci war buñ ko defar buñ xëyee dinañ ko reeteet munoo may ma dix minutes da keroog ci guddi gi la woo waa OFOR ñëw defar ko ci guddi gi kon ay taxaw moo amul ci dëkk bi taxaw moo amul ci dëkk bi état gi def li mu war a def supervision am euh, am amu ci amul voilà ni mu waree ñi ni mu waree mooy ci wàllu technique ak ci wàllu yëpp wala boog volonté mm-hmm. booy soo loolu yëpp mm-hmm. yéen lan ngeen yaakaar ne mooy solution mm-hmm. ngir problème ndox mën a jeex Touba ñu tëjee ci loolu waaw solution moom waaw damay jàpp ne am na ay techniciens yi fi nekk pour loolu waaw sëñ waaw université bi. waaw ndoxum naan mooy yitteem. ak ndoxum taw mi. waaw loolu nag sëñ Tuubaa ko njëkk a wax. waaw wa maskani sallim minal jaari wam nun ala ahli bi maa ngi jaari sëñ Tuubaa bi muy ñaan boromam ndox sax da ko wax ni ko dàqal ma kàccoor yi ba noppi. kon ñu jàpp ni kàccoor yi ñun reeteet. waaw dañoo jàpp li ñu ci baat di sëñ bi bokk. waaw sëñ bi ko bi ñu mën a faussé. waaw kàccoor yee war a dem ndox mi soog a ñëw. Ah. pour ñun solution bi. waaw mooy ñu bëgg ndox mi am engagement am détermination fii ne nii may wax yow du ma jeexal te waxuma ko. waaw dëkk bi fenn amul ndox. fi am ndox mi lañ man a wàññi. muy fan ak fan. fi am ndox lañ mën a wàññi te ay quartiers yu néew la. waaw fi amul ndox. moo daaru xudóos bii amul ndox. waaw kër ñan daaru mi naan kër sëñ Muntaxa demal def sa reportage kër sëñ kër xalif seeraat amul ndox jumaa ji tay laa la may suba mm. boo duggee boo xellee du xelli mm. kër yi wër jumaa ji du ñu xelli mm. euh, Madiana un deux trois quatre cinq six sept cinq ba six ñun ñoo def suñu vingt six millions ñun Madiyana laa wax de. waaw ñoo ko def amul dërëm buñ ñu defal ñoom. te ndox mi dem na. nga topp ko noonu jannatu carte Hizbut Tarqiyyah amul ndox. dëkk bi fenn mu fi ndox. li des nag mooy ay taxawu. ñuy ñaan autorité yi. état. def na lu bari ci ndox mi. dëgg naa directeur OFOR. dëgg naa directeur OFOR mu ne. quatre vingt dix pour cent. ndox mi am na. quatre vingt dix neuf pour cent ndox amut. may ñaan rek taskatu xibaar yi ñu wàcc def ay reportage xool dëkk bi xam ne dëkk bi amul dara ci ndox te loolu moo leer jërëjëf ñii sëñ Touba doon seen maam nag maa ngi leen di ñaan mm-hmm. ñu bàyyi xel lii ñëw jàppale sëñ Muntaxa mi ci ndox mi mm-hmm. maa ngi jégalu jërëjëf sëriñ Mourtala Gaye mm-hmm. bu ko defee kon ñu yamante ci foofu rek daal di fas yéene nag dalal euh, bi la yoon Mamadou Mokhtar Sarr ñu ñëw ci xët yi gën a fës ci li génn tey ci ëttu yéenekaay yi mbokk yi Seydina Muhammadin xayril wara من خاد لي خدمته هو السورى